xew exactement. maa ngi lay gërëm bu baax Khadija donc euh, li xew mooy euh, euh, rassemblement la boo xamante ni société civile ñoom ñoo ko initié woon. Mhm. muy ñi nga xamante ni ñi ci gën a fes mooy mu si Cissé bi jiite ONG 3D. ak ñoom Demba Seydi ñoom Gaël Babacar mbay bi nga xamante ni ñoom ñoo jiitee payez ce que vous publiez ce que ce que ce que vous payez ak ñoom Yanamar Alioune Sané ak euh, ñoom Aliou doyen Alioune ak ñi nga xamante ni ñëpp ñooñu lañ ci àndal bi ñu organiser événement boobu ñu invité ci ñi nga xamante ni en déor même d'une casquette politique bu weesoo sax li nga xamante ni dañuy ay woy politique mais ñi nga xamante ni yëpp wàllu bonne gouvernance daf leen intéressé mm-hmm. te képp koo xamante ni xam nga ñu xam nga ñu sunu yitte yëpp mooy nan la ñuy def ba li ñëpp bokk ñëpp jot ci donc ñooñu daal di ñu ci invité ñu daal di dem ci manifestation boobu nga xamante ni jàpp nañ ne lu am solo la surtout ci contexte bi nga xamante ni euh, rapport boobu feeñal na loo xamante ni sénégalais am na ñu ko xamoon am na ko xamuloon mm-hmm. waaye li ci gën a métti mooy contexte bi nga xamante ni defee nañ ko ci te xam naa dinañ su dellu si ci biir waxtaan bi mm-hmm. donc euh, loolu moo fa xewoon ñu daal di dem nag wuy ji euh, bi ñu demee tamit contrairement ak li nga xamante ni gis nañu ko euh, te je parle sous le contrôle de Mouhamed Diop nga xam moo nga fa woon mhm. am na ñu ci bari ñoo xamante ni bi ñu ñëwee bëgg nañ ci gis ñu foofu. rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko euh, initié ndax ñoom ñoo ñu invité. bi ñu ñëwee euh, ñoom ñu daal di ñuy dalal doyen Alioune Tine euh, Mimi Touré fekk nañ ko fa. honorable député Guy Marius Sagna ak kilifa yu bari yoo xam bi ñu leen fa fekkee ñun sax ñoo mujjee ñëw waaye ñoom ñëpp bi ñu ñëwee ngir sargal ñu ñoom ñëpp dañu jóg taxaw tatagal ñu ñu daal di toog daal di ñuy jox ñu toog bi ñu toogee ci la coow li commencé am. ñu gis ñenn ñoo xamante ni euh, xëy na euh, seen leader lañ doon gën a xaar euh, te gisaguñu ko mm-hmm. ñooñu tamit commencé di tudd seen leader ci kaw bi ñuy tudd seen leader ci kaw euh, bi ñuy tudd seen leader ci kaw euh, xam naa Mouhamed dina ci ñëw moom fekkee na ko témoin oculaire la <laughs> donc bi ñu commencé di tudd seen leader ci kaw am ci ñeneen ñoo xamante ni tamit xëy na dugg nañ ci xam nga seytaane dafa bëri doole donc bi ñu ci duggee nag am ci ñoo xamante ni dañu commencé di wax wax yoo xamante ni yu ñaaw la mm-hmm. di commencé di saaga di commencé di di di kii ba ñu jàpp ne sécurité amatul foofu ci la euh, soxna Mimi Touré daal di jóg daal di génn mm-hmm. Alioune Tine daal di génn génn man nag ma taxaw pour essayer comprendre li nga xamante ni xew na mhm. ndax moment bi nga xamante ni am na si ñoo xamante ni ñoo ngi ñaxtu am na ñoo xamante ni bëgg nañ ci gis ñu foofu mhm. euh, beneen bi mooy ñëw bi ñu fa ñëw askanu Sénégal lañ fa ñëwee woon ñëwuñu fa ndax manifestant yoo yooyu fa taxaw dañu faa ñëw ngir ñëpp ñi nga xamante ni ñoo bokk réew mi ak fu ñu mën a ne te ni ñu yore réew mi ak ni ñuy caxat-caxatee alalu réew mi naqari leen loolu moom mooy li nga xamante ni moo ñu fa yóbboon alors li gën a indi coow li nag mooy amalgam bi am amalgame bi mooy lan mooy bi sécurité bi apprécié ndax caméra yi boobu amatuñu yitte ci podium bi caméra yëpp dañoo tourné jublu si ñun donc mu indi jafe-jafe ndaxte wax dëgg yàlla man dama faa ñëwoon rek pas pour ñu filme mais waaye pour ma ñëw déglu ndax woy politique yi nga xamante ni ñoom la ñuy dénk dafay baax yenn saa yi ñuy dem di déglu ñu jox leen ay yóbbal keroog société civile bi ne benn politicien du fi jël parole donc bi ñu ñëwee ñoom ñëpp ci suuf lañ leen teg man ci suuf la ñu ma teg donc comme annoncé nañ public bi ne benn politicien du jël parole pour des raisons sécuritaires bi ma ñëwee ñu yégal ma ci kaw podium bi am ci ñoo xamante ni jàpp nañ ne waaw nan la ñu mën a waxee ne benn politicien du jël parole ba pare ñu gis Pape Djibril ci kaw podium bi amalgam boobu laa jàpp ne moo gën a indi frustration te xamuñu loolu disposition sécuritaire la woon. Mhm. waaye organisation yi bi ñu ma yëgalee foofu ba pare loolu xëy na mënuñu ko woon a wax ñi nga xamante ni moom mooy ñenn ci euh, li nga xamante ni moom mooy askan askan bi nekkoon foofu. alors léegi nag bi ñu ma wàccee. may dem li may wax yëpp je parle sous le contrôle peut-être que Mouhamed sax ko xamee noonu parce que man j'étais dans le feu de l'action moom moo ma gënoon am recul. donc bi ma wàccee nag di dem ci la ñu ci lañ ñu topp am ci ñenn ñoo xamante ni topp nañ ñu commencé nag di sànni ay xeer commencé di wax safaan. commencé di wax loo xamante ni wax yu ñaaw la euh, te fi ñu koy teg rek mooy jàpp nañ ne bokkoo doxalin ak sunu leader. Mhm. waaw loolu loolu moo gënoon indi coow li. ma jàpp ne euh, honorable mhm. pourquoi yow. Euh, lan moo tax yow ah, ah, ci sa sa xalaat yow nga nekk cible bi alors ko bari na fi ay leader yu nekk ci opposition bi yoo xamante ne bokkuñu forcément gis-gis ak ñoom seen leader Ousmane Sonko. xaw ma wax dëgg yàlla xaw ma ko loolu xam naa ne ñoom mën nga leen ko laaj euh, dinañ ko wax mais jàpp naa ne Ousmane Sonko xam na ma bu baax gis na sama trajectoire euh, gis na sama taxawaay à chaque fois que Sénégal soxla woon ko te loolu jiitu na tey euh, xëy na ñoom mën nañoo bañ a xam ndax ku xamut xamut mm-hmm. waaye Ousmane moom xam naa ne xam na moom bu baax te xam na sama taxawaay ay xam na ne intérêt général lay défendre moom laa mës a défendre xam na ne peuple bi laay faral te moom il est très bien placé pour le savoir. Mm-hmm. dégg nañ nga nga wax ni yëf yi tentative d'assassinat la. ndax mm-hmm. da nga nar a bàyyi mu jàll wala da nga nar a topp yëf yi. alors ce qui s'est passé mooy euh, keroog waxuma sax. Euh, ne sunu borom bu ñu defalul woon sutura musiba mën naa xew. chauffeur bi nga xamante ni moo yor sama oto dafa paniqué dafa tiit ndax xëy na mosul retrouver wu ci situation yu mel noonu dugal oto bi ci impasse ndax foofu dafa am ay travaux BRT la yaakaar naa. ñu daw fekk xam nga fu am ay travaux BRT dafay bari ay xeer. bien parce que day ñu jël xeer yooyu nag commencé di ko dóor ci oto bi. dañu jàkkaarloog ñun nii ci pare-brise bi di dóor. xeer yi ci par brise bi. di xëcc bunt bi am ci ñoo xam dañ doon xëcc bunt bi naan tijji leen ñu def nangam. yaa ngi dégg loolu bu dul tentative d'assassinat xamatuma lan la. xam nga ñiy wax yëpp mooy ñi nekkul ci situation boobu dunduñu ko sori woon nañ ko ñu ci bari par par loo fees dell ci seen xol. ñu écume les plateau de télévision di wax loo xam dara wóoru leen ci waaye li nga xamante ni moom moo xew loolu la. donc loolu am na ci ñoo xamante ni ils étaient dans le dispositif ñu ànd Euh, yàlla xam na ne traumatisme bu métti la ñu nekkee parce que tamit jàpp nañ ne keroog euh, suñu borom moom moo ci def sutura waaye lu ne mënoon naa xew parce que mouvement de foule dafa doy waar lu nekk moom moo ciy xew ku nekk moom moo ciy nekk mhm. te lu ne mën na cee xew après ñu ne xamuñu woon xamuñu fan la jógee xamuñu kan moo ko def c'est très simple fekk ne boobu béy wéy na mbuus est-ce que ci mbir mi mhm. nga def conférence de presse wax assassinat est-ce que nekkoo di exagérer déedéet exagéré trop dans la victimisation. déedéet man loolu du ko def xam nga loolu ñi koy wax yëpp mooy ñi nga xamante ni lépp lu ñu am xëy na victimisation moo leen ko may man nekkuma ci loolu moi je suis journaliste à la base je relate les faits bu ñu fàttee loolu jete factuel te xëy na sax indiwuma lépp ndax jaru ko sunu borom lay jël témoin j'étais factuel keroog lu ne mënoon na xew lu nekk mënoon na xew lu ne mënoon na xew sunu borom moo ñu defal sutura pour preuve gis nga bi may wàcc garde du corps yi nga xamante ni ñoom ñoo yoroon la sécurité de la manifestation bi may wàcc kaw tribune bi kenn ci garde du corps yi dafa kenn ci garde rapproché yi foofu dane ma booy wàcc col bi nga yor mooy drapeau Sénégal bi ma bi ma koloo woon dane ma booy wàcc taf ko sa bakkan comprendre wu ma li mu doon wax mais bi may wàcc genre xaw ma pompe à gaz la xaw ma am na ci loo xamante ni dañ ko dóor mu romb ma genre ndox la xaw ma genre poudre la xaw ma lan la donc jeune ne savais pas ce qui se passait et leneen li nga xamante ni xëy na aussi maa ngi koy déplorer c'était l'absence des force de défense et de sécurité hmm. gisuma leen foofu alors que pour man mouvement bu toll noonu foule bu toll noonu fu ñu dajee